ci assemblée nationale man ak suma naataango Victorine Ndeye pour ñu ñëw ci assemblée assemblée wote suñu budget euh, wax dëgg yàlla ñu ngi rafetlu ni mu demee waxta wa gaa waxtu bi xaw naa néew waaye jot nañ cee waxtaan ci lu nga xam ne lu am essentiel te euh, député yi nangul nangul gouvernement bi nangul président la République orientation bi joxe ñoom ñëpp à la majorité ñu nangu ko wote suñu budget ci anam yu rafet ñu ci sant yàlla bu baax a baax euh, di ci wax nag wax ngeen ma léegi ci mbirum xëyu ndaw ñi damay rappeler rek président de la République ci arbitrage am dafa ñu joxoon fukki junni ak ñaar euh, yu nga xam ne ay xale ñu war a recruter fukki junni yi ñu war koo jël ci UCG ñaari junni yi ñu war koo jël ci euh, cadre bi yooyu yëpp tey ñu ngi ci 81 pour cent 80 pour cent et quelque nga xam ne jël nañu leen te ñu yaakaar ne fii ak décembre danañ mën a àggali li des ñu nga xam ne war nañ leen recruter euh, li ci am rek dafa amoon dëkk yoo xam ne mënuñoo utiliser ay xale yoon xam ne mënuñoo utiliser plateforme war ñoo ñëw déposer seen i demande ci UCG et cetera loolu yëpp nag ñu war koo mën a defar ba nga xam ni fii ak décembre bi jeex ñu mën koo yembal li des tam mooy euh, ñu waxtaanee mbirum set ci dëkk bi loolu itam waxtaan nañ ko bu baax jàpp nañu ba bu setal bi président relancé euh, lu baax la def nañ ko ci 14 capitales régionales yëpp ñu jàpp ni fi ak mois de mars dañ ko def ci capitales régionales yi ak ñeenti département yu des ci biir Ndakaaru yooyu bu ñu ko paree ba mois de mars ñu évaluer ñu xayma liñ defagum xool li nga xam ne war nañ ko cee def ou bien nañ ko ci yokk fësal daal moo di président dafa ne baax nañu set setal mais nañ ko saxal wala nañ ko saxal nañ dañ ko jaarale ci xale yi mooy ci élèves yi ñu ajuma bu nekk euh, benn ajuma ci benn ci weer bi ñu wax ñu jàngal leen ci biir classe yi cet lan la njëriñam ak naka la lañ ko war a doxalee mais aussi mu bëgg samedi bu nekk ñu associé élèves yi associé euh, jeunes yi euh, yu nekk ci ASC yi yu nekk ci conseil national de la jeunesse associé bajjenu gox yi associé ci kilifa diina yi ñëpp bokk ñu seetal suñu réew setal suñuy dëkk loolu nag gis nañu ni mu commencé baax na loolu waaye président wax nañu do bu waroon suñ ko arrêté mu nekk un comportement de tous les jours te ci loolu la nekk. waaw bu ñu xoolee tamit euh, lu bëri xam nga yu bëri yu ko wax ay mbënd mi ay jafe-jafe nga xam ne mu ngi jógee ci dëkk yu bëri amuñu ay ay plan yu nga xam ne dañuy wax urbanisme nii la war a tërale président bi mu daf ñu jox ndigal ne bi mu constaté dafa gis ni 13 pour cent rek ñoo ko am adopté benn plan bu ñuy wax programme national ba nga xam ne si loolu la ci loolu la jëm mun nañu bëgg na fekk 2024 capital régional yëpp nañu am bépp plan bu nga xam ne day dem ci urbanisme mu wax ñu itam capital départemental yëpp fekk 2024 na ñëpp am plan bu nga xam paree si yooyu nag ñu mën ko yaatal dem ci dëkk dëkk dëkkaat yëpp ci biir Sénégal loolu lu ñu rafetlu te boobu tamit ñu validé ko conseil bi mu dugal ko ci li nga xam ne koppar jox nañu ko pour ñu mën koo ñu mën koo doxal. waa loolu xam nga loolu amul kenn ku muy neex ñëw fekk dara rek wa wàccee ko loolu amul kenn ku muy neex waaye dafa fekk ni réew mi bu ñu wax des désencombrement du ñuy jaay ci mbedd mi rek ou bien ay ay cantines yu nga xam ne teg nañ ko fu ñu ko warul teg publicité bi dafa war a am organisation. boo xoolee fii ci Sénégal loi bu nga xam ne moo organisé publicité yi 1983 la 1983 de 96 jaar na fi communes yi yokku euh, après acte 3 de décentralisation jaar na fi mais aussi euh, mairie Ndakaar rek moo fi amoon. léegi mairie bi dafa ànd ak 19 communes yooyu yëpp am mu am environnement aussi bu bu yaatu loolu tamit ñu war koo defaraat ñu war ko xoolaat ba ñu war koo xool mais balaa ñu ko balaa ñu fay àgg mais mënuñu continuer di gis ci tali yi di gis ci mbedd yi désordre bu nga xam ne mënuñ ko continuer te mënoon ñoo rek ku nekk am fu nga samp sa pana am na ku la autorisé ki la autorisé bu la autorisé wul ci yoon autorisation boobu nekkul ci yoon te état nguur gi nag c'est vrai am na lu nga xam ne collectivité locale yi ko war mais nguur gi mooy garant de te am na lu nga xam ne bu demee ba yàq dafay nekk agression à l'ordre public te ordre public nag gouvernement moo ko war a yor te loolu président jox nañu ndigal ñun ak ministre de l'intérieur ministre de la communication ministre des collectivités rurales mu ne nañ mënkaloo suñu ñu waxtaan ak ñi nga xam ne ñu ngi ci liggéey boobu naka la ñuy def ba am cadre bu bees norme yu bees te yu respecté aussi droit droit moo xam ne sénégalais bu nekk am na ko am am am dëkkuwaay yu sell dëkkuwaay yu nit mën a dëkk loolu moo ci am solo te yaakaar nañ ni quelque soit ñu dañ toog ci table waxtaan ba ne loolu ñu mën koo méngale mais du tee nag loolu moom mën naa ko wax mu leer mooy li des di des ci suñu ndigal lañ ko jëlee ndigalu gouvernement bi te liñ ciy def encouragé nañ leen ci mais danañ gën a waxtaan ak ñëpp diisoo ak ñëpp ba nga xam ni ku ci nekk mën ca gis boppam waaye nañu xam ne daal loolu moom du lu ñuy arrêté lu ñuy arrêté dañ ko war dañu ko continuer parce que dañoo jàpp loolu mooy yoon bu nga xam ne pour dëkk bi set dëkk bi jaar yoon moo am discipline